à trois dafa xaw indi nit ñi tuuti jiixi jaaxal surtout gis nañ bi ñu demee Togo Togo ni mu leen ni mu ni mu leen acculé. Mm-hmm. Euh, certains ont parlé du système euh, qu'il est que Aliou est en train de de tâtonner même s'il fait aussi quand même il faut le huit ans à la tête de cette de, de cette sélection donc mm-hmm. war na xam équipe am. Mm-hmm. Euh, mais nit ñi comprendre uñ euh, système yi nga xamante ne mu ngi koy essayer balaa muy dem coupe coupe d'Afrique lan nga ñu si mën a wax. non xam nga tamit nit ñi il faut que ñu match bu nekk ak système bi koy jouer équipe bu nekk tamit ak li mu lay indil et n'oublie pas que les gens jouent contre le Sénégal pour ne pas perdre ils jouent pas pour gagner kan la ñuy jouer mu génn nit mais est-ce que mi ngi utiliser son effectif à bon escient. mais, bien sûr et aujourd'hui ces statistiques lui euh, parlent pour lui nañu xool ay aujourd'hui statistique gu Aliou à la tête de la à la tête de de cette équipe là ça parle pour lui xool leen tey jii équipe bu Cameroun sa ñaata match la joué ñaata défaite la am et ñaata ñaata ñaata victoire la am ta ba léegi ma ngi foofu toog donc pour vous dire euh, Aliou ne tâtonne pas Aliou il il, il, il il a son sujet en main xam na li muy def bu baax a baax et dañ ciy waxtaan ñun ñëpp avant les matchs après les matchs c'est quelqu'un qui est très réfléchi xam na fu mu bëgg dem aujourd'hui match bu nekk ak ni ñu koy jouer tu sais tey jouer contre le Sénégal dafa métti il faut que sénégalais yi xam loolu lu tax parce que les gens viennent jouer pour ne pas perdre ils viennent pas pour gagner parce que quand tu joues pour gagner da ngay tu, tu, tu attaques mais quand tu viens tu joues contre le Sénégal tu mets ay sept défenseurs huit défenseurs même des fois am na ñoo xam dañuy teg neuf défenseurs wala onze défenseurs ni leen aujourd'hui pour gagner contre le Sénégal il faut défendre et compter sur les coups de yëpp di def on est à battre on est l'équipe à faire tomber on est l'équipe à donc il faut que nit ñi def nànk def nànk mooy lan mooy nanu bàyyi entraîneur bi tranquillement ak xelam mu xalaat xool nan lay jouer match yi et gagner les matchs li ñu koy reproché nag Adja sénégalais yëpp damay dem man fépp laay dem mm-hmm. euh, l'équipe ne joue pas euh, comme l'équipe du Brésil wala comme l'équipe argentine déedéet ñun on est là pour gagner aujourd'hui on est là pour être décisif on est là pour gagner avant dañ daan jouer bu baax daawuñu gagner léegi on gagne lu tax jouer